xam ñoom nga ànd ñëpp ci liggéey bu rafet bi mu def di la féliciter sama tàmbali ndax ku jàngu Nahjul Hadaaya bu Seex Ahmadu Bamba mi ngi wax si ay teggin teggin yooyu lan xam si yow yar googu lan xam si yow mos ñoo dégg sa kàddu ci lu ñaaw nga wax ñu ko wala nga wax kilifa yi àndal kon boo ñëwee fii il faut ñu féliciter la encourage la aussi ñaanal la di la féliciter encore ci li nga xam moo am démb ndax li am démb ndamul Sénégal la ndax avion teeru nga ko teeru boo xamante teeru bu rafet la réceptionné na ko kooku ndamul Sénégal la ñu ngi ñaan mu gën continuer ndax ku ne xam na ne président de la république maître Abdoulaye Wade amoon na yéene ba taxawal fi ay rapport am yéene ba taxawal fi ay compagnie bu doomu ñëw mi président Macky Sall àggale loolu amaat yéene boo xam ne dafay tegaat si kanam kon da lay wane ne am na benn vision bi fa am boo xamante ne am na boo xam ne président Macky Sall wax dëgg yàlla vision boobu noonu bu am solo la may laaj nag ay question bu ci ndëkk gis na ni li nga xamante ni mooy conseil national du tourisme ndax conseil national du tourisme boobu yan matuwaay ngeen jël pour que accompagner loolu pour que ñu mën a gën a wane suñu mbirum tourisme lañu soppaan mooy promotion de touristique yi nga xamante ni réew boo jëm ci àddina dangay ngay gis promotion tourisme ñu samp ko pour que muy war a développer tourisme te gis na ni ñooñu banqaas yooyu noonu jamono yi mi ngi tàmbale naax saa yi ndax daanaka seen liggéey yu bare bari indiwaat nañ ko ci ministère bi te ñoom dañ leen war di maanaam di leen gën a doole doole di leen gën a gëdd daal ndax que fa ñu nekk ñuy mën a gën a wane Sénégal li nga xamante ni aussi mooy li président Macky Sall waxoon bi muy intégré ñaari bato yi muy Égéne ak Diombat waxoon ni Sénégal Casamance mooy zone zone touristique yi may laaj est-ce maanaam bi ngeen toogee ba tey jii yan matuwaay ngeen jël ci loolu nga xam moom la président Macky la waxoon ci Casamance ni mooy film touristique est-ce que yéen a koy appliqué wala président Macky Sall daf ko wax ba pare yéen ngeen bañ a appliqué wax boobu noonu ak jëfin bi bëgg naa tamit ngeen xam ko. li nga xamante ni mooy tourisme religieux bi nga xamante ni jàpp naa ni tey bu Sénégal waree développé si foofu la mën a jaar pour développé may laaj bi nga ñëwee lan nga fekk lu fi jot a am. ak yow sa programme lan nga pare pour def ko ci tourisme religieux boobu noonu ndax ku ne xam na ni le tourisme religieux au niveau du Sénégal moom rek lan mën a jaay ndax tey màkk gi nga xamante ni tey fa la ñuy dem tourisme religieux moo koy doxal mais li am màkk am na fii il faut que ñu jaay li nga xamante ni tey mooy tourisme religieux bi pour que bu ñu bëggee li nga xamante mooy gab bi war a am ñu am ko may laaj aussi au niveau de aéroport Blaise Diagne ku ne xam na ni aéroport bi métti na trop surtout le travail contrat yi ngeen signante ak ñi nga xam ne ñooy waa Turquie yi nga xamante ne police sax bu bëggee dugg si biir aéroport boobu dañ koy visité du mën a dugg bu fekkee yurul tëneem kooku tam bëgg naa aussi tamit ay leeral ak aéroport bi ñaat la jar ak kañ lañ ko tàmbalee fa ak kañ la mën a jeex loolu bëgg naa si tamit nga leeral ma si. li nga xamante ni moo jëm ci mbir mi nga xamante ni mooy mbirum hôtel yi hôtel yi mu le ministre war na ko xoolaat ndax ñun dañuy dem ay séminaire ay hôtel mais da nga gis yoo xamante ni daanaka dañoo am seen xaalis am na tur yoo xamante yu bëree bëri isin bi mu war a am ak ñi nga xam ne noonu nga war toppatoo demul noonu en il faut que nga jël say matuwaay ñu ngi lay encouragé aussi bu baax ndax vraiment gis nañ tournée yi ngay def jamono yi di ko jëmee ci hôtel yi ak yi kooku il faut ñu félicite la encouragé li en tout bi mi ngi noonu ñu ngi lay ñaanal yàlla may la réussite nga si commerce yi ñëw ci tourisme ak transport aérien te loolu mooy banqaas bi nga xamante bu am solo la pour réew mi bu fekkente ni yàlla dogal na war nga fi sa xam-xam président Niass accompagné la ñu ñëpp ñu boole bokk liggéey xam ne Sénégal ñoo ko bokk yaakaar naa ni liggéey bi dana mën a jëm kanam en tout cas loolu bokkoon na ci question yi nga xamante ni bëggoon na ko laaj pour que nga indi ma ci ay leeral en tout cas ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la ndam defal Sénégal ndam je vous remercie monsieur le